asalaamualeykum waa Thiès dafa am lu bees tàq-tàq loo xam ne dama ko daj woon ci paquet muy lan kaay woneel ma yàlla def na nag bi ma dajee sama lu bees tàq ma ñëw dajee ku yor lu bees tàq tàq tàq muy kan Baye Cheikh nduur nekk fan fii ci Randoulène tubaar fa kàlla macha allah Baye Cheikh nag dafa innové dafa gëm boppam gëm li muy def xam ni fii war naa fa mën a yëgg waaye gaynde njaay waay baay cheikh lii laa xam man dama ni li ñuy jëggaani di ko wuti am na fii ci Thiès kaay gëm leen seen bopp baay cheikh dafa gëm boppam de li ma leer ba leer mooy cees bàyyi na ko xel waaye dafa def li neex def li dàq xam ne aar bi ñëpp a ko bokk mu dajale ay nawleem dajale ay doomi ndeyam dajale ay xaritam képp koo xam ni nit ku baax nga daal baay cheikh woon na la tey ci bërëb bi nga xam ni moom lay tijji muy lan Yes Abima man bima ñëwé lima fi fekk ci bopam dafa tuuf samay bëtt may wax ni képp ko xamni nar nga sañ ci tabaski gi ba fo romb ñu ne ma nga nële nga la way ñëwal ci Baye Cheikh yes abi Abima fi la dé moko yor dé jeeg jongé ji képp ko xamni ne ba nga sa jëkkeur bu ba ñu ne ma nga né kay sét si Baye Cheikh nour dafa innover dafa gëm bopam xam ne li muy woote mën naa ne moo tax mu ne xaaral ma ñëw nag yoonu randu leen ci tali bi fi nga xamante ni dafa ni fàng dàng ma tëjji fa sama atelier tailleur yemul foofu de boo ñëwee ba jël sa mbubb mi nga war a sol mbaa nga nil ko sa ñaw mu ñawal la wala nga bëgg prêt-à-porter ba Cheikh moo sonalul kenn xam na ni léegi gars yi amatuñ doj te corona oblige fi mu ne nii moom yu bari da koy xam a di xaw a démystifier bay Cheikh ne ñewul nga nat bi la jot nga sol nga ni damay jëndi dal ci biti dedet fo jëm ni gees rek à gauche wala à droite nga ak say dal chaussure ferme amna ni nu amna ay cerax a fi ah bay Cheikh bo fi génnee war nga boo nee rek ñu xamni ne nga ci bay Cheikh la jógee waye dama dend ak sama rak sama xarit secrétaire bay Cheikh ta dama ni jinax bu yagge ci pax amna lu mu fa fekk maa nga ko ñu nga ko woyee fële ca ngent ca place ba ca ngent kon nga xam ni Baye Cheikh fowul foluwul àndul ak kuy fo caaxaanul caaxaanul àndul ak kuy caaxaan dani Cees kaay leen ñu bokk liggéey pour bañ xale yi jigéen ñi di taxawaalu bañ xale yi jigéen ñi di traîner aha kay Baye Cheikh nag li nga def dafa rëy ndax nag ah dama ni koo sàkkal salaire ah ay waa këram war na la sant gërëm la sama jigéen man de ni nga def ba xam Baye Cheikh rek la lay laaj. Euh, asalaamaaleykum mbolo mi ma ngi nuyu ku ci nek ci turam ak santam particulièrement suñu chers client yi fidèles di rafetlu aussi sen téway avant tout euh, ak sen disponibilité euh ñëw rejoindre ñu fi ci Thiès Habillement mën nañ ne deux wa pour wax kuy Baye Cheikh su ma koy wax fi bu suba duma fi jóge Euh, Cheikh nekk na nit koo xamante ni yàlla ma booleeg moom muy sama càmmin ju baax mu nekk nit ku am jom nit ku am pas-pas nit ku gëm liggéey xam li mu bëgg Baye Cheikh ku ko xool xam ku ko gis ku ko xool xam ne nit ku simple mën naa ne dañuy doog amaguñu dara di ñaan yàlla ñu koy teewaat feneen ak beneen dëkk di woote ay nit ñu ñu fay fekk ci barke Seydina Muhammad bàyyi Cheikh ku xool xam ne teel a xëy guddee wàcc minuit wi sax danga koy romb xool ko ci kaw seen ko mu ubbi di liggéey nekk na nit ku am jom nangoo naa liggéey fonk na ay waajuram ndax nit boo jiitalul fonk say waajur mën naa ne amaana fii nga yegsi doo fa yegsi lépp loo gis lu ko waral mooy ñaanu waajur avant man ku ma jàpp ku ne man daa fekk nga jox cër say waajur man boo ko joxee ma gis ni ngay réagir rek man damay ànd ak yow ma fekk ci ko ci aussi tamit ci li mu bëgg du dëgg ba ma ñëwee mën naa ne commencement bi doon naa def ay caaxaan du dëgg mais ba mu ma woowee ci liggéey ma xam ne kii dafa am ngëm-ngëm ma ànd ceeg moom kenn xalaatu woon lii man mii ba may ànd ak moom xalaatuma woon lii mais yàlla def na tey jii damay wax alhamdulilah rabil alamin ndax ba muy dugg ci moom comme que jëmul ginnaaw jëm na kanam damay sant yàlla ci kontaan bu baax di gën a ñaan yàlla aussi tamit mu jëm ci kanam mën nañ ne bee moo njëkk bii moo ci topp mais lépp benn la ñu ngi disposer taille yëpp da ngay ñëw gesu sol prix abordable doo sonn ci dàll doo sonn ci yére aussi aussi tamit nga ñëw fekk ci différents tissus kon boo nga xamante ne kooku jom ak liggéey lii ku ko gis xam ne lii jom la ak liggéey ak ku foyewul ndawam aussi tamit góor gu takkul ndigam ci ba muy door nekk xale li du ko am di nga màgget do am dara kon li ku am rek ba da nga xam lo bëgg ba Cheikh di ko ni li la gëm mu am gëm-gëm gi ba yalla indi ko fi tay di ñaan yalla nak mu gëna yok mo moo boole mbul ak lambay te ken méré wuko xam nga fi li fi léegi li fi secrétaire bi wax man mënuma ko wax ma ngi do a gis tay ba Cheikh àndu mom moom nekku maak mom waye bukki ni ne luy deug mu ne li ñepp wax ba ma secrétaire am mu wax ba paré dama ni ki nga xamante ni ami d'enfance am la ñoo bokk lépp dafa ñëw taxaw war cee sànni ay kàddu. nom de Dieu le clément le tout miséricordieux avant tout peut-être je vais tenir un discours en français pour montrer l'innovation de Baïcher. Mais en premier lieu, je vous donne toutes les salutations. Vous, l'un des saints de Cheikh Khadim qui est parmi nous. Serigne Abdul Ahad Aujourd'hui, vous avez donné à cette assistance beaucoup de respect spirituel. Je n'allais pas dire un respect temporel, car la spiritualité et la dignité mohammedienne incarnée par votre grand-père illumine aujourd'hui notre victoire sur terre, mais aussi dans l'au-delà. Et vous savez très bien, mieux que moi, ce que je dis. Je vous salue aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de votre présence. Je vais tout de même tenir un discours sur ce tome qui nous a réunis aujourd'hui tous ici, Baye Cheikh parce qu'il a innové, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, mhm. mais quelque chose d'autre, c'est l'entrepreneuriat. Nous étions tous des élèves, des étudiants, il a eu son bac comme nous tous, Mustapha, euh, Babakar, Massamba, Bassirou, Ndoy, Cheikh Bamba et autres. Nous étions au lycée Malexi. Mais après notre baccalauréat, lui, il avait une vision que nous autres, nous n'avions pas. Nous, nous avions décidé d'aller à l'université, continuer nos études et devenir des doctorants, etc. C'est cette pensée qu'on avait dans la tête. Alors que lui, il avait pensé comme Steve Jobs. Et il a réalisé aujourd'hui quelque chose qui est génial. Et c'est quoi C'est Thiès Habillement. Le nom aussi que vous avez utilisé, Thiès Habillement, c'est un nom qui est symbolique. Tu représentes Baye actuellement toute une région. L'entrepreneuriat veut dire quoi C'est entreprendre. Deux mots, entre et prendre. Ça demande quoi De l'énergie, de la force, de la patience et de l'endurance. Et tu as toutes ces qualités

ndax sëriñ bi jotaay bi yàgg na lool te lu néew la ñuy gis mu toog jotaay bu mel nii wala jotaay yu mel nii waaye nee na digganteem ak sëñ Cheikh rek lay lay lay feddali jox gi mu ko jox boppam ba noppi jox ko léppam amul lenn lu koy umb ci jëmmam ji loolu lay seere tey ñaan barab bi nee na barke lool di ñaanit it mbooleem fu ñuy dégg kuy yëngu si lu demee nii sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba mii maamam yàlla bu kenn ëppale sëriñ seex mi ak mboolem ku ko yéene sëriñ Cheikh sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu wér di la ñaanal ah te xam ni mbooleem loo xam ne daal moom yor na ko wala maamam sëriñ Touba yor ko nee na mi ngi koy boole te li sëriñ bi yor rek sakkan na waaye nee na moom day daggaanaat sëriñ Touba mu gën laa dolli say xéwal mm. ndax xam na fi nga ko féete ndax xam na ni nee na boo amee mu am wala boo amee ñëpp am ndax borom xol bu yaatu nga nee na ku lewet nga ku nangoo joxe àddee nga fu mu nekk yaa ngi koy xeeñtu nee na mi ngi ñaan fii seddu guy nag te ànd ak jàmm ak xéwal nee na mi ngi lay ñaanal yàlla na doon ay ay ay palaas yi si ay raison yu bëree bëri ci barki Seexul Xadim. macha allah macha allah Baye Cheikh li nga dajale fii tey dafa daw yaram sax nag ndax defe naa ni. tey ngeen ànd ak man neexul yombul waaye tey ñu ànd ak yow moo ko dàq téeméeri yoon te loolu ngeen ko defal kon yàlla na yàlla gën a dëgëral ànd bi ñoo ngi koy ñaanal yàlla lii mu def yàlla na ci gis lu weesu njortam yàlla na ko ci gis ah ñi muy àndal te mu jaral leen lu ne yàlla yàlla gën a dëgëral seen ànd yëf yi daal fii la rek monsieur Baye Cheikh Ndour en tout cas sañse bu rafet tegee ci temps ku la gis nopp la fii la ci Baye Cheikh